naqar ak tiis ñeel waa quartier bëgg Bamba ay jafe-jafe la ñuy jànkonteel saa su ne la ko waral weesuwul ne ndox ci boppam lu nu mënta te gët moo ne ci bëgg Bamba ay forage ñoo ko wër waaye ñoom jaaxle nañu jigéen ñi di wax ne root nañu ba desetuñu wagg. ndaxte ñun waa quartier bëgg Bamba depuis màggalu Touba ba léegi avant màggal depuis Kazu Rajab ba léegi dañoo sonnoon lool ci ndox lu jiitu màggalu Touba ndaxte ñun. fajar la ñu jóg la maam ña daan def ba léegi bàyyeeguñ ko di jóg fajar di tàppaat comme di dem ci teen ya ba léegi ñun noonu la ñuy def dañuy xëy takk suñu bidon wut suñ sareet teg ci suñuy suñuy suñuy bidon di fab sareet bu ne yaa ngi koy fay bidon bu ne cent franc mu indil la ko suñu xale root nañ mag ñi root nañ gone ñi root nañ taataan même taw bi bu ma saan ñëw bala ñoo fóot dañoo taataan wala ci ndoxum taw mi sax demoon nañ ba ci la ñu togg màggal gi ñëw rawati ndax depuis màggal màggal gii dañoo root root a root ba suñu gan sax tëluñoo lekk tëluñoo naan ndaxum root gan ñi buñ xëyee ànd ak ñun ci root mi bu ngoon jotee ñu ànd ak ñun ci root mi bu ñu tëdd ànd ak ñun ci root mi dem nañ ba daanaka gan goo ci gis sax tëlutut a lekk ndaxum root ñun nag waa quartier bëgg bàmba ñun ñoo gën a sonn ku sonn di am quartier bëgg Bamba kër wele quartier maam jaara fii ba euh, kii garage wu magasin Baye daam ñoom ñëpp ñu ngi jooy am ndox ñàkkum ndox ak mbaar ya fii daal ñun daal dama ne la quartier bëgg Bamba bépp ñàkkum ndox mi ngi ñuy diggante ak Maawu Rahmati boo matut matut matut matut euh, booy xool ni matut diggante fii ak Daaru Xuddus eggu fa daanaka booy tur boo fayee cent franc egg fa te mënuñoo gisum ndox loolu lu ko gën a métti amul ñun sonn nañ ñun jigéen ñi bëgg Bamba ñun jigéen ñi bëgg Bamba sonn ñi sës sax ci Maawu Rahmati matul seen diggante ba matul boo koy xool matul na diggante feek fee te ñoom gisuñu ndox nañ ñu wax nag lu ne ci forage yi bu dee forage dañ koo téye ñu xam bu dee dañ koo tëjit ñu xam ndaxte ñun kat ndox lañ gis ñuy jaay ay sase sase ndox yi ñuy jaay ci dëkk bi nag te ndox mun ta amit nag war nañ ñu koo wax nag bu dee dañ koo dañ koo def leneen it ñu wax ñu ko lu ci mën a xew nañ ko wax. soxna Nabou Ndiaye di wax ne li leen métti sax weesuwul ne dañu leen laaj ay koppar te gisuñu ndox. demoon nañ ci ba avant màggal defoon nañ ci benn recensement ñëw nañ fi ne da ngeen di joxe buntu kër gu ne vingt cinq mille ñii vingt cinq mille màggal gi del si mu dikkaat di ko laaj ban tàmbali woon di ñu gas ay tuyaux mais boobaak tey gisuñu benn suivi gisuñu ci benn suivi amuñu ndox tey la ndox ma gën a waalo gën a aay dara dugg fa ba jamono yi may wax yow yow suñu robinet sax xanaa far dafa far tëj te kër gu ne joxe bunt ko boroom kër goo ci gis ma ngay siisu lu ko gën a metti ci amul ndaxte da ngay seet joxe juróomi junni ñu ne la danañ la indi lum ndox boobaak tey gisoom ndox déggoo ko màggal ñëwati ñu laajaat la ko de ñaari at yëpp màggal gu ñëw ñu ne la nangam nang nga joxe ah metti na nga joxe te doo gisum ndox doo ko dégg bun na oto ndox yi dina ñëw Touba bun dee mayam ndox ñun duñ ko gis dañ naan da ngay jënd ndox boo boo wooyee oto ndox ba mu ñëw 15000 nga koy fay mu soog laa duyal sa base loolu lu ko gën a metti ci àddina te da ngay rang ca forage ba da ngay rang 2 jours te boo rangee ba sab liste ñëw boo fayut 15000 kenn du la jox kenn du la jox ndox nii la la oto bi di rombee di dem. Serigne Khadim Ndiaye di kilifay politique ci gox bi di wax ne ñoom daal li nu seetlu ne mooy kilifa yi yëngu-yëngu rek la nu mën waaye bu desee jëf daanaka kenn du leen seen fenn. ndax quartier bu fi nekk fii ci Daaru Xuddoos ak li ko wër ba ba ngay dem Aliya ak Baxdaad fu ci nekk taxaw naa fa campagne Macky Sall jigéen ñooñee ak góor ñooñee nga xam ne ñoom laa daan àndal nag ñoo amoon ay problème ma jaar ko ci sama député jaar ko ci préfet jaar ko ci ku wàll wàllu jaar ko ci ñu yor yi te taxul mu saafaraw ma jàpp na nag su fekkee ne nun danoo bokk ci dëkk bi bokk ci deru xuddoos wuuf forage yi te mënunoo amum ndax kon xanaa dama defe ne dafa am leneen loo xam ne mën na cee nekk lu dul affaire forage parce que nun moo wuuf forage yi li ñu ci gën a gën a metti it mooy mbir mi dafa nekk lu jiitu lool màggal gi màggal gi nag yokk na ko waaye moom jiitu na màggal gi kon bu ñu jekkee ba màggal gi ñëw mu waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo yor wàllu ndox mi yor wàllu euh, organisation bi muy préfet ñu waxtaan dégg ci ay rajo ak i télé avant màggal gi ñëw ñu def ay CRD CRD yooyu waxaan na ndox du du manqué Touba te fekk na nun booba ñu wax naa ne ndox du manqué Touba nun fekk na juróom benn weer ci mar la nu nekk ñu jàpp ne kon xëy na nun danoo bokkul ci ñoo ñi nga xam ne dañoo war a bokk ci ndox mi manqué ak mudul manqué way la ñi nga xam ne ñoo ko yor ci fi nu ne sont incapet euh, incompétents way la ñu xamee ne ñu négligé lañu way la ñu xamee ne ñun bokkunu ci su fekkoon ne tey jii danoo nekkoon day Mbàkke Bawol way la ñu nekk Louga yàlla dimbali nañu ci ak manko ci sunu famille bii yàlla dimbali nañu ci as wërsëg mën na noo gasi forage waaye Touba moo demewul ci ne nit mën na fee gasi forage ndax def nañ fii ci dëkk bi loo xamee ne gas na ay forage yi forage ban ko fi defee it te nit ñi ñëw defe ne suñ njariñ a tax ak dong lu def ko fi di ko xëccoog nun dañ ko wàcceeg ñoom dem liggéey seen Touba ci leneen loole bu buñ amoon ndigali ak si ay forage ci Touba gi kon ndëgani fekk na duñu mar duñu xiif kon sax daanu wëggale ñeneen ndax yàlla may nañu ci as wërsëg loola may nañu nuy famille bu mànkoo ànd te liggéey sëñ Touba dara jiituwunu ci ci cérémonie officielle bu nga màggal du Touba kilifa yi wax ne yëg nañu jafe-jafe yooyee lu am la ci dig diggal bi waaye màggal giir ñëw balaa booba darañ jël ay saafara na mu gën a gaawe